ayca asalaamaaleykum mbokki tur fi mbokki seetaan émission naar góor ci télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax a baax euh, di leen ziar di leen euh, balwax di leen balax tey nag mbokk yi ñu fii ci France euh, fii ci California hôtel California tey nag ñu am bis bu rëy bis boo xam ne si ne yaakaar naa Sénégalais yëpp baaxo nañ di ko seetaan saa su su at mi jote rawatina mois d' octobre premier dimanche octobre Euh, ñu dem jëlali len ko mu nek Grand Prix Arc de Triomphe euh, Qatar Prix diko dawal mu nek course bo xamni si ne course bo ama am solo la ci taarixu course hippique ci monde entier yëpp euh, motax nak sa suné Sénégal di def une forte délégation ñew ci course bi nga xamanteni moy Grand Prix Arc de Triomphe te Qatar Prix diko dawal at mu jot mu nek course bo xamni ne course bo ama am solo la bu am taarix la ci walu course hippique rawat na fi ci France way rawat na ci monde entier te monde bi yëpp tay ñu ñuy bàyyi xel moo tax nag euh, Sénégal du ci des euh, benn yoon saa su ne euh, tey nag ñu ànd ak in forte délégation jógee fa nga xamante ni mooy Sénégal ñëw àndanteeg Omar Ba Junior àndanteeg délégation bi nga xamante ni moom la ñu àndal yëpp suñ ko limee dañuy juum délégation bari na plus ay vingtaine de personnes ñoom ñëpp ñëw nañu jógee ca Sénégal ñu teewal fii Sénégal mu nekk nag loo xam si lu am am solo yàgg na yàgg lool ñu ciy gërëm bu baax a baax. Euh, ñi nga xamante ni ñooy suñu ay njiit a commencé ko ku ci mel ni Cheikh Tidiane nga xam ñun ci moom la ñu gimbee ànd ak ñu dëkk ànd ak moom ñëw fii France ak ñeneen ak ñeneen nga xamante ni ñoom ñëpp kenn ku ne bàyyi nga sa waar ba mu jot ñuy ànd ñëw fii ci France euh, ci Grand Prix bi nga xamante ni moom la ñuy wax Grand Prix Arc de Triomphe édition 2024 nag ak seen bokk seen xam joom bay pexe ak émission Naaru Góor tey nag moo tax émission Naaru Góor sol ay dallam télévision Futurs Médias ni du ci des benn yoon saa su ne ko doon defalee euh, ñu defalaat leen ko gis nga tey plateau bi maa ngi ko commencé fii ci euh, hôtel bi ci Warwick léegi nii rek la ñuy daal di àndandoo délégation bi délégation bi mën nañ plus de trente personnes ñun ñëpp dañu àndandoo jël ay van jël ay oto dem foofu ci hippodrome banque ba nga xamante ni moom la ñuy wax hippodrome Longchamp tey jii ci Grand Prix Arc de Triomphe bi nga xamante ni tey moo am 2024 fii si France mu ne course boo xam si ne course taax la yaakaar naa nag bu ñu waxee course naaru góor du ci des ginnaaw benn yoon mission naaru góor kenn ku ne xam ni saa su wax du sol du sol te France nag bi nga xamante ni naar buñ ko fonkoon fonk fukk ndaxte ñoom dañuy def ci fas lu ne fas jaral leen lu ne fas amay leen lu ne ñu fonk fas xam fas ñun nga Sénégal tey suñu fas yi nga xamante euh, Sénégal ci course sang bi nga xamante ni moom France di leen importer leen indi foofu fa nga xamante mooy Sénégal di ci teglu suñuy fas di ci am ay fas yu baax a baax ay race yu baax moom la ñuy dawal foofu Sénégal loolu nag tax na ñun tamit ñoom bu ñu amee course bu toll ñu ñun yoon la ñu ñëw fekk si leen xool yan jument ñoo fi gën a baax xool benn fas mooy raw Grand Prix ak pour ñu fexe am ay sëtam wala ñu am ay doomam ñu yóbbu ko foofu Sénégal pour man a yokk suñu race amélioration bi nga xamante ni moom foofu fa nga xamante ni mooy Sénégal loolu nag seen émission naaru góor saa su ne def leen ñu toppal loolu àndandoog délégation bi àndandoog seen jël course hippique wala leen lépp loo xamante ne ci wàllum course hippique la ci wàllum course hippique la rek euh, télévision Futurs Médias ak seen bopp seen mi ngi àndandoo génn ngir wan leen loolu nga xamante ni mooy wàllum course hippique jëmale ko ci télévision Futurs Médias kon mbokk yi du ma sori damay gërëm bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo ci jàpp ba mën ñëw fii ku ci mel ni nag euh, ki nga xamante ni mooy Fallou ay frère nga xamante ni ñoo nekk foofu ci Wakaam di ñëw tenue yu rafet yi nga xamante ni tey ñoo ma sama tenue bu rafet bi nga xamante ni moom laa sol ma di leen gërëm bu baax a baax ñoom nga xamante ni saa su ne ak ñoo may accompagner si Grand Prix Arc de Triomphe ma accompagner ren tamit ñoom ñoo ma accompagner ma di leen gërëm bu baax a baax di leen sant ci confiance bi nga xamante ni am nañ ko ci man di leen dokkee bu baax a baax waaye di wax ni Sénégal yëpp dem leen fa gaaw jënd ci tenue yu rafet yi nga xamante ni saa su ñëw France rek ñoom ñoo may accompagner mbokk yi du ma sori di gërëm nag bu baax Omar Baba Junior ndaxte moom tamit suñu mënee ñëw tey fii télévision Futurs Médias jàpp na ci waaye Omar Baba Junior tamit mënu ko gën a yombal jàpp nañu ci wàllum béy ki wàllum lépp ba nu mën a ñëw fi tey kon moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm ndaxte am na ñenn ñu mu waroon te defuñu ko kon moom bu ko waree mu def ko kon dañ koy sant bu baax di ko gërëm mbokk yi foofu laay teg sama baram àndandoo génn wala leen tey course

la fa xew lépp loo xam si ne na fa rek en temps réel moo leen ko ci émission Naar Goor ak seen bay grand prix acte de Triomphe catalpie Prix di dawal édition 2024 ak émission Naar Goor seen mbokk seen xam bu jëm bay ñoo dem